barke sëñ Tuubaa mag day digle ndaw day déglu mag daa fekke ndaw daa wóote mag dafa war a topp gone daa war a topp mag mag mu yaru mag day digle ndaw day déglu mag daa fekke ndaw daa wóote mag day jiitu ndaw day toppe baxaw boo ca gëjee doo góob napp ku la nëbut xaru la dëgg bu réeree cim pénc ñu koy jeex ñekkul kër gu mu dugg dañ koo ragal a wax borom barke ak borom xaalis na kenn du la wax dëgg waaye ku dem bàq ya dëgg nga fay fekk yàllaa ko moom ajjana yàllaa ko moom sëriñ Tuubaa nag li defal yàlla kenn da koo defut waaye nag yàlla naatu heure nii raanu àddina jub rek ajjana ak teraanga ku la ko wayefal da nax ajjana du marché occas doo tëb dem da ngay liggéey jaamu yàlla cëy la mu daj cëy la mu am tëdd nelaw yeewu du buur yor kër tugg tey toggalu yor kër sax Tuubaa jumaa ji rek la jik dépasse di jël koose ku la gën ku la yar moo la gën doy lu mopp géej xol bay dajale alal moo gën a wawu doj soo muñee da nga muuñ kuy fayu doo dem kuy tooñ doo dem kon jël jéggale tey bañ a fayu waa ju baax nag boo ko tooñee day muñ yàlla fayul ko fay ko ab saay saay nag day fayul boppam baa doola booy xeex ak moom ci Tuubaa bu la dumaa du ma siiw xeex nag boo ko gaaw a def waaye boo jex see ba dugg na nga góorgóorlu ndax ki la man kat bu lay ma wàcc ma yaa may gaañ bi tax mu bala tooñ ko la man attee sori xaru la jigéen ak sàngara kenn du ko jaay doole ñeenti soxna ko aaya gërëm la soo tëlewut tam léegi feebar ñëw kon da ngay muñ soo muñee da nga mooñ ku fi baax jigéen a la jur kon addina da ngay joxe njël tey jaale ji tey jaxale dañ ne yitte yi daa bari waaye ku bokkul yitte yi doon yitte yi te ku doon yitte yi ñu reyal la nag woo fekkewut faatu ak jongaat kenn ñemewu ko kon yàlla na fi yàlla bàyyi benn lañu koy defee ay rab armée li Tuubaa yee nag aéroport boo xam ne amul retour awaas rek ku ñu wufal say loxo sa kër tas soo ñàkkee nag da ngay muñ ndax léegi nit ñi intérêt lañu xool soo amee bari ay xarit soo amut da nga wéet waaye ku am yàlla am Sëriñ Tuubaa ñàkkoo ndax dañoo wax ne Baye Sam Mbaye dina borom alal yi yow mal xiyaam ñooy ñooy mujjee dugg ñooy mujjee dugg àjjana soo fekk da ngaa ñàkk te gëm ko kët waxuma na ngay ñeetaane sa ñaar dërëm yi nga def ko sa milliard lala jafe nga muñ ko yem ca lala doy ëllëg yàlla faye ko lu ko gën ndax sunu borom àjjana néewut ñu dem ñu am alal rek ñoo cay dem ndax taxawaay arafaat bi bëkk démb yàlla man dogal na woor naa ko dañ ne boo ko war dañu lay jéggal say bàkkaar tabaski gii bi mu jàllee bi nga ko defee wàcc na la bi ko defut woon kenn xamalu la dara ndax yonent bi daa rey ñaari gàtt ñi ko mënut defal naa leen ko waaye nag lépp ci loo xam ne bëgg sa soxna tax di la jay bu tabaski gi wëyee da nga sa soosalub kaani bala ñoo añ danga nga tisooli da nga ñandu kon ndigali sëñ Murtala yi nan ci yem nan ko jàpp ku daa xeesal nan ko bàyyi ku daa garafaat nan ko bàyyi ku daa musique nan ko bàyyi ku daa fecc nan ko bàyyi ku daa def lu gënu nan ko bàyyi ndax borom jamono kat moo wax te itam suñ njariñ rek la daqaar du wuum ku ko mëccut addina tey la rek loo bañ dee fekk la ca na nga ko bàyyi ngoro boo ca boo boo ca boo doo jël waaye nag kuy jaay laalo teggi faraas tubaab yaa fa nekk duñ lekk cere ab xeesaay ak làkku naar ku ko jaay gànnaar ak bañ bu weex dafa saf ak i gëléem fa fekk baax dox bu mag ak xaj bu mag buñ demee ndakaaru dootuñu ñëw dañuy lang de dox ba dafa dem ndar tok fa am ñaar fukki at ak juróom ñu ko sa sa papa da daga gaañu mu ne ma ngi waj dem ba tegaat fanweeri at mu ne ma ngi waj ñu ne ko bàyyi ci doo mu ne dootuma dellu kajoor ndax dañ ma fa da sànni ay xeer ma deg na ndar neex na ma ñew mos yënu ndar ñu may ma sa morom ma am ci ay doom di ci ta fe da fa amul won jam kon jam rek neex jàmm bokku te jëm jëmóor da ko teral tëral ko ko toroxal mu toxu ko tekk mu dawla ko koo mo la saamaas gi nag dañuy yor ayub ji te ñu géej gëleem fekk yor ayub bi ganaar ñu koy wax jàppal sa bopp te say ayub na la doy ayub yi jàmbur ko koy xoolee nga ayub te ku nëbbal nit ñi say ayub ëllëg yàlla yowmal xiyaam yàlla dina nëbbal say ayub soo ragalee ab julit benn tibum ñam yonent bi nee na mu ëpp doole tabax ju nuy jàkk soo joxee nit ay mbubb soo yee ca àjjana danañ la ca wodd kon teral ab julit dafa am solo koo man te koy duma boo ko gëjee gis jërul nëbbu jëru laajte dalaa nëbbu ndax koy bëgg a gaañ ku nekk borom wërsëgu tabe nag ci Touba di jënd ay ordonnal dañ koy def xarit waaye boo yoree ay milliards doo dimbale kenn ci Touba bu ab xaaj maatee kenn du la yërëm kon am murit am rek ko gën ndax soo amee da nga mën a dagg buumi gàcce soo amut doo mën a teral sa bopp boo amee gan da nga koy mën a teral ci teraanga yonent bi ne boo gëmee ne bis penc ci ñëw na na nga wax aw yiw wala nga noppi ndax léegi ordinateur yi daa bari لواي دي واخ نكوي خام داخ واخ كان نات لا لامين بار مو لا بوري سي دوتو كو مانا جاب نيوم تي لك دوس با ريك كو مانا كوستاتي كون كو توب سي خاري سي تباسي غي تاي ما جيلي في خاري خاري دنا لا في جيلي تا دو كو في جيليتي تا رير رير تي غن رير بن نو تود شيخ جوب سي شيخ جوب يارنا نجاي ساكال مولا دون ديفال باند يالا نو غودو فان تي بارك سيغ توبا سيغ مونتاخا ياغ في يالا ماي نو وير sunu ruu yi lu yàlla na tëjal yàlla na ko def ay jën ca géej ga te nawet yàgg dugub ji bari ndax kenn mënu ñoo dimbale ku may yàlla yàlla miy joxe dépasse te du añ si yàlla nu dimbale wasalaam jërëjëf